Ida bu fikkirati lay ma xel mi asida barke Borom Tuuba kon jërëjëf mbokk yi nga xam si yéen ñuy bàyyi xel seen seen Alxadimiya TV euh, fii ci biir réew mi ak bitim réew bi ñu ngi am ñëpp it di kàddu gi suñu ñaari parle euh, di wax ne jotaay bi mooy euh, première émission de la Fàttali sur la Mouridiya mbooloo mi di association des érudits de la Mouridiya muy mbooloo nga xam si dañuy taal ci yoon bi moo xam ci làkk bi moo doon ak ci lépp ci réew mi ñu ànd ko waa Moukhaddamatoul Khidma waaye ànd ko suñu daayira Rawdu Rayaahiin ñu ànd fii ci nga xam si ne mooy biir jumaa Tuuba di def liggéey bu am solo ay téere waaye ci wàllum ay garabu ci wàllu fànn kon noonu la ko defee sànq toog nekk jotaay bu am solo ci téere boo xam Cheikh Amadou Bamba monsieur Mountakha moo ko ci Cheikh Amadou Bamba ak mboolem téere ci si Cheikh Amadou Bamba ñu ngi leen di expliqué ci li nga xam ne sëñ bi loolu la ko waxoon si ndigal la woon waaye indi ci wàllu taarix bi ñu yàq moom da ko toog ba suñu feeñee jamono dañuy dàqoo ak ay témoignage bu nekk daal ko am solo suñu bàyyi respecté ñu ñu nekkoon modérateur bi gannaaw bi gis nañu kilifa sëñ affaire gisoo nga xam si ñoo la ci liggéey bi def na waxtaan bu am solo kon loolu nag lañ ko fas yéenee àggale tey jii dañuy waxtaan beneen présentation bi ñu koy def ci bu am solo gannaaw bañ jugee ci Cheikh Amadou Bamba kon dañuy ñëw ci maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam si moom mooy ñaareelu téere bu ñu fas yéenee fii ki ko war a def nag di docteur Boubou Malick Diouf euh, ouvrage bi rek mën nga tuddee Cheikh Ibrahima Fall 1855 1930 itinéraire de l'engagement de Cheikh Ahmadou Bamba muy jaar-jaari góor yàlla bi nga xam si lépp ci jëf la ko teg kooku nag ñëpp taa bi Cheikh Ahmadou Bamba Euh, xam nga ci biir téere bi dana ci dugg waaye li ñu wax rek balaa ci xóotal dañuy présenté mbokk taal bi nga xam si moom moom nekk ki nga xam si euh, comme ni ñu rek liggéey bi waa AIM e la mooy ñi ñu ci woon ba ñu ànd ko rabu baax yi ak mu xaddamatu xidma sëñ Abdou Sall nekk ñi nga xam si ñoom waa rabu baax yi sëñ euh, Abdoulaye Lo nekkal fi waa Muxaddamatul Xidma waaye jotaay bi ñu ko seen mooy sëñ Motaw Cissé sëñ Motaw Cissé nag membre ci association des équipes de la Mouridiya waaye nekk membre bi nga xam si moom mooy secrétaire général bi nga xam si moom moo ko yor kon nañ yor liggéey am solo waaye nekk koo xam si day gëstu bari ci yoon bi ba teefal ci yoon bi la mu nekk teef bu am solo waaye ki nga war a ko xaram nag ñuy dëppal maanaam bi xam naa man doo dugg ci man seen mootaale gannaaw seen abi mu seen mootaale moom moo leen di présenté xam kan la seen maale wax na ci village bu bëri ngi tudd baax a ñu war a yëpp di doon yëpp ko daal yi moom am ouvrage bu am solo ouvrage saalix ci présentation bi ne xam naa incha bi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 wa sallallahu wa sallama ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain saddid lisaani naawir janaani safi amaani wa sid barayi mbokk yi nga xam ne ñooy topp jotaay bi ak fu ñu nekk ci Sénégal ak ci biir réew mi ñu ngi leen nuyu nuyu bu tedd nuyu bu teey di asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fii ci dëkk bu tedd bi di Touba ci barab bu tedd bi di jumaa suñ Touba ji mu jumaa ju mag ji ah, tey mbokk yi ñëw fii dafa am benn maarad muy ci fay màggal gi ñu ah, ko taxawal mooy bindikat yi nga xam ne dañoo nekk ci yoon wi di ay kawaadir maanaam ay kàngam yu mag ci xam-xam di ñoo xam ne ñoo dañoo nangu seen xam-xam ngir seen gëstu yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo ak seen annéew ju gudd ñooñu ñoo dajaloo def benn mbootaay tudde bindkat yi yoonu murit bindkat yi yoonu murit mbooloo ñu ko composé ci bindkat yooyu ñu ñoo xam ne daal képp xam ne nga doon bind ci yoon bi ak nag bu mën a doon ubbil nañu seen buntu mu jël nga dikk bokk ci kuréel googu waaye ñu ànd ko daayira Rawdu Rayaahiin bi nga xam ne Cheikh Ahmad ak Badawi Mbàkke ibnu Cheikh Ahmad Fadal moo ko jiite ah, muy daayira bu mag boo xam ne ñëw gën xam-xam ne dañu ñëw ci wàllu xam-xam ak tasaare nañu sëriñ bi ak am njàng leen ko jaare ci bind te muy téere waaye ànd ko daayira mu àndul xet na ñu yore liggéeyu jumaa ji kon xam naa yaakaar naa loolu solo lay doon ah, fan maa ngi nekk yëpp dañoo bëgg a nekk ci barab bu tedd bii nga ci exposé ay téere yooyu nga xam ne ko moom lañu bind ci sëriñ bi ak ci yoonu mooy bu ñu yoonu yoonu la fi ëmb maanaam

Doudou Niane Diouf mu tànn ci kàngam daan suñu wax Xaadimu Rasuul di Cheikh Ibrahima Fall lamp bari mooy diina mu bind benn téere bu am solo baax na solo si moom mu ko bind xam naa dañu déglu baax a baax a baax ko ndax ku ne xam ne ni du manque ci réew mi wala ko liñ gën a manque mooy ay guide spirituel wala ay royukaay ay delluwaay te am nañ ko bu baax a baax nag te ñooñu bokk na ñooñu buñ mën a toppal sëriñ bi kon jàpp na di a am seen jikko ak seen doxalin mën a roy ci ñoom naa wàññi bu baax a baax baax mooy sëñ bi di docteur daaw bind ci téere bu mag bi nga xam ne tey moom bëgg représenté murid yi présenté bi ñu ñëwaat présenté ko àdduna bépp ngir ñu mën a xam kan mooy maam si Ibrahima Fall baabul muy diina kon xam naa dañuy jox ki nga xam ne moo war a mën a bi mu Serigne Mor Talla Cissé bi mu fekkoon mu ngi jàpp gëstukat euh, bu mag ci yoon wi bokk ñi nga xam ne ñoo saytu liggéey bi bu ko defee mu présenté euh, ki nga xam ne mooy def tàq din bi incha allah ñu liggéey bi.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 Nous avons entamé notre programme euh, qui consiste à présenter l'ouvrage sur euh, Cheikh euh, Fall, Un ouvrage de qualité, de portée historique, euh, dont les étudiants et les chercheurs auront besoin. Euh, le livre s'intitule, l'ouvrage s'intitule donc Cher Ibrahim Fall, 1855-1930, itinéraire de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba. Ce, cet ouvrage comprend trois parties. Euh, des textes introductifs comprenant donc une préface, une introduction, etc., et un corpus euh, qui comprend deux chapitres. Et la troisième partie, ce sont les annexes, les illustrations et la table, la conclusion, donc les annexes, les illustrations et la table de matière. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans les détails, de contextualiser, de situer le contexte euh, qui concerne cet ouvrage. Pas le contexte d'écriture, mais le contexte historique. Je rappelle que Shahira Mafal est la naissance du mouridisme, pour les analyser, il faut analyser d'abord le contexte historique du Sénégal d'autrefois. Je me contenterai de dire que c'était une époque caractérisée par des crises multiples. C'est la chute des monarchies traditionnelles avec l'assassinat de Samba Laobé Fall à Tivaouane et la mort de Lat Les deux sont tués par les colons français en 1886. Le deuxième élément de ce contexte, c'est la mort de tous les combattants qui avaient pris les armes pour faire face aux colonisateurs. Cheikh Omarou est tombé à au Mali. Et euh, Maba Ba est tombé dans le Saloum, dans le Sine plutôt. Cheikh Omar euh, Cheikh euh, Amadou Ba, n'est-ce pas, est également tué et tant d'autres, comme Mahmoud Lamine Tramé. le troisième élément, c'est une crise généralisée. les populations avaient perdu des références, avaient perdu des modèles, elles ne savaient donc où se diriger. C'est la raison pour laquelle la naissance du mouridisme et l'émergence des guides comme Cheikh Ibrahim Fall avaient une importance capitale pour le devenir de ce pays et surtout pour le devenir des populations sénégalaises. damay wax ni rek ouvrage bi pour nga comprendre ko euh, nga gën ko mën a analyser dañ koy situer ci benn contexte historique mooy période bi nga xam ni moom la gën a concerné muy naissance su mouridisme te Cheikh Ibrahima Fall nekk ci acteur bu am importance wala bokk ñu ko ci tudd période boobu dafa nekkoon benn période boo xam ni euh, dafa euh, dafa amoon crise bu méttee métti ndax ñi fi nekkoon ay buur dañ leen a rey kiñ ci mujj a rey mooy Lat Joor ginnaaw bu ñu reyee Samba Lawbe ca ñoom ñaar ñëpp ñu ngi leen rey ci mois d' octobre 1886 n'est-ce pas ñi nga xaman dañoo jëloon ay ngànnaay di jihaat di xeex ak tubaab bi ak ñi nga xam ni euh, dañu àndoon ak moom ak ceddo yi ñoom ñëpp itam dañ leen a rey Foutiou Tall fële ca Bandiagara ci Mali euh, Maba Diakhou fële ci Somb ci Sine Cheikh Amadou moom itam noonu lañ ko def ba ci Mamadou Lamine Dramé ak itam ñi nga xamee ni si dañ doon xeex pour taxawal diine kon mu nekk benn contexte historique boo xamee ni si euh, bu doyoon waar la ci loolu nag ci la Cheikh Ahmadou Bamba feeñee jóge Kajoor ginnaaw boo xam ne rey nañ Lat Joor kon ni ma ko waxee daal ñëw euh, Mbakke euh, Bawol sanc Daaru Salaam ba sanc tuubaa gi nga xam ne ci lañ nekk tey waaye ca Mbakke Kajoor fa la ko Cheikh Ibrahima Fall euh, fekk jébbalu ci moom di doomu garmi mënoon nekk sax buur amoon xam-xam waaye itam lu lépp mu bàyyi ko ginnaaw ñëw jaayanteeg sëñ bi Cheikh Ibrahima Fall nag ci ñi gënoon ràññeeku ci la bokk ndax euh, lu bari ci mouridisme moo ko fi indi wala bokk moo ko gën a fésal xam naa ni sëñ bi wax na ko ci biir téereem bi waaye ci ñi Cheikh Ahmadou Bamba njëkk a cheikhal euh, ci boppam ci la bokk ca concept boobu damay rappeler ni ñaari confrères yi ñoo koy utiliser muy mouridisme ak euh, qadriya ñoom ñooy ñooy tuddi ñooy wax seexal euh, maanaam bu ñu yaree benn taalibe ba mu toll ci benn dayo bi ci xam-xam ak ci spiritualité dañ koy ber yebal ko fenn mu continuer di liggéeyal euh, yoot bi kon ñoom moom Cheikh Ibrahima Fall su fekkee juumuma ñi ngi ko seexalee ci Daaru Salaam sëñ bi daal di koy yebal mu war a dem nag euh, liggéeyal yoon wi liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba ma boole ci ni cheikh yi nga xamee ni si ñoo toppoon Cheikh Ahmadou Bamba dañ leen doon séddale ñetti xaaj am na ñoo xam ni ñi nga xam ne jàng rek moo leen taxawoon a jóg sëñ bi da leen daan booleek ku mel ni maam Thierno Birahim wala sëñ Abdourahmane euh, Ndamlo wala sëñ sàmm Mbacké su fekkee ma bu fekkente ñi nga xam dañ leen war a yar dañ leen daan boole ak maam Cheikh Anta wala itam ñu dem ci maam Thierno Ibrahima fekkee ñi nga xam ne dañoo war a dem liggéeyi nag dañ la naan boole ak Cheikh Ibrahima Fall. boo demee Cheikh Anta ci livre am boobu mu bind muy livre am importance moom daf ko boole woon ci cheikh yi nga xamee ni si dañ daan yar yaru liggéey waaye itam di recruter ay taalibe kon moom Cheikh Ibrahima Fall boobu moom la euh, docteur Doudou euh, Mané euh, bind ci moom la bind. téeréem bu rëy bii nga xam ne mu ngi ko tuddee Cheikh Ibrahima Fall 1855 1930 mu mel ni daf ni ay jaar-jaaram euh, la bëgg a wane ci kenn ci ñi nga xam ni jëf lañ leen gën a ràññee ci yoonu murit jëf lañ leen gën a ràññee ci yoonu murit moo tax mu tuddee ko l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké euh, moom Doudou Euh, dañu am nag habitude bu fekkee dañuy présenter euh, benn auteur ñu wax autor bi mooy kan wax itam livre bi lan moo ci nekk xam naa ni euh, ku mel ni moom wax mooy kan dina jafe rawatina ka xam ni temps bi dafa xaw a xat waaye ñu jàpp rek ni moom mu ngi jàngalee ci ñetti niveau jàngalekat la jàngalekat la di jàngalee ci ñetti niveau professeur de lycée la. waaye professeur à l'université Cheikh Anta de Dakar la au département de lettres modernes waaye itam day jàngale français technique d'expression d'écriture dans les écoles de formation n'est-ce pas kon muy jàngale si ñetti niveau lycée enseignement mooy secondaire euh, université mais également au niveau de l' de la formation professionnelle mu ngi bind benn thèse de doctorat ci étude africaine su fekkente ni jomuma kon dafa ci yoonu murit nag la ko la ko consacré même bu fekkente ni titre mooy étude africaine domaine bi la euh, mën na nekk maanaam filière bi waaye ci yoonu murit la ko consacré donc mu nekk ay gëstu yoo xam ne yu am importance la waaye damay rappeler ni également membre fondateur la ci association bi nga xam ni tey moo lëkkaloog muqaddimatul xidma waaye lëkkaloog également rawdu rayahin membre fondateur la ci kon sëñ Doudou Mané moomu docteur Doudou moom moo bind livre bi li ouvrage bi nag bi nga xam ni moom la bëgg a présenter euh, ni ma ko waxee woon léegi boo koy séddale da nga wax ni ñetti xaaj la xaaj boo xam ni ay texte introductif moo ci nekk muy introduction beeg préface bi nga xam ni euh, ku am solo ci yoonu murit la ku am un homme d'état un ancien ministre muy Moustapha euh, Maba Guirassy nekkoon ministre de la communication moom moo ko préfacé waaye moom itam mooy directeur général ay eh, IAM benn école de formation n'est-ce pas benn école de formation boo xam ni bu siiw eh, fële ci dakaar la eh, kon livre bi ouvrage bi ni ma ko waxee première partie bi kon mooy texte introductif yi nga xam ne wax naa ci naa ci préface bi mu am benn corpus waaye tam mu am li ñuy tuddee troisième parti boo xam ne ci la conclusion bi nekk ci la illustration yi nekk ci la annexe yi nekk ci la table de matière yi nekk kon xam naa ni euh, ouvrage bi nag ñu ngi ko édité en août deux mille deux mille vingt deux n'est-ce pas euh, édition euh, Artige moom moo ko édité ouvrage bi mi ngi toll ci trois cent quarante huit pages su ko defee li ci gën a am solo muy deuxième partie bi muy corpus bi. moom mi ngi séddale ko ñaari chapitre chapitre bu njëkk bi euh, mi ngi tudd euh, les enjeux culturels euh, de l'époque loolu junj naa ko ndax wax naa contexte istorique bi léegi nii ñaareelu partie bi nag mooy vieille œuvre de Cheikh Ibrahima Fall kon dañuy xam naa buñ ko toppee duñ fi jóge waaye li mu bëgg a wax rek mooy Cheikh Ibrahima Fall ci ban contexte historique la la feeñ yan enjeu moo nekkoon euh, euh, ci jamono boobu par rapport ak colonisation française bi surtout par rapport aux enjeux culturels avec la naissance de l'école française sinon le développement de l'école française n'est-ce pas beneen bi kon dañuy wax kan mooy Cheikh Ibrahima Fall fan la gane àdduna fan la jàngee nan la jokkoo ci sëriñ bi nan la ko sëriñ bi yaree lan la ko sëñ bi santoon lan la defal sëriñ bi surtout nag rôle bi nga xam ni moom la joué woon bi nga xamee ni sëriñ bi mi ngi nekk ci géej bi waaye itam rôle bi nga xam ne moom la joué ci diggante sëriñ bi ak ñeneen yi waaye rôle bi nga xam ni moom la joué surtout bi nga xamee ni sëriñ bi làqu na mu taxawu euh, njabootuk sëriñ bi ñu rawat na euh, sëñ Modou Moustapha mi nga xam ni moo nekkoon premier euh, xalif kon lii mooy nga xam ne moo nekk ci biir livre bi mbind mu rafet la ndax euh, boo seetee source yi yu am solo la yu crédible la analyse bi itam analyse bu profonde la waaye itam méthodologie bi méthodologie bu claire la boo xam ne articulation bi leer na waaye itam euh, lu neex a liir la boo koy liir day mel ni comme ni ma ko waxee woon euh, ci benn dédicace day mel ni livre théâtre ngay liir wala benn roman ngay liir doo bëgg a bàyyi Euh, ndax euh, neex gi mu neex waaye leer gi mu leere ak itam euh, ni mu yombe comprendre kon xam naa ni damay bàyyi docteur Doudou mu dugg ci livre bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil sant yàlla sant yenent bi sant Serigne Touba sant maam Cheikh Rahma Fall Babal Mouridina jërëjëf professeur euh, Cissé si introduction bi wax dëgg yàlla li ngi si wax moom lu lu leer la. Euh, maa ngi tudd Doudou Mané Diouf comme ni mu ko waxee maa ngi jàngale Université Cheikh Anta Diop département lettres modernes en même temps di jàngale si lycée li si lycée yi ak euh, ay école de formation à Dakar. waaw sama livre bi bi nag euh, tudd Cheikh Ibrahima Fall 1955 1930 l'itinéraire de de l'homme d'action de Cheikh Ahmadou Bamba téere bu xam ni euh, mi ngi génn euh, mois d'août weer bi passé 2022 gëstu yi nag maa ngi ko commencé yàgg na lool en 2002 may bind sama mémoire maîtrise la choisir bind si yoonu murit bi ma paree sama mémoire maîtrise ma ak sama DEA bi ma paree DEA ma continuer ci même sujet bi bind sama thèse doctorat en 2010 au niveau département de lettres modernes école doctorale ETHOS spécialisation études africaines titre sama thèse bi moo nekkoon euh, l'épopée religieuse de Cheikh Ibrahima Fall ou la réforme socio-culturelle mouride loolu moo nekkoon euh, sama sujet thèse ma wone nag euh, li maam Cheikh Ibrahima Fall liggéeyal yoon wi ba nit ñi gën koo xam waaw ci sama thèse boobu nag laa tibb gën koo yaatal pour mën a bind téere bii boo xoolee téere bi li ma si at yi ma si def euh, mat na fukki at ak juróom quinze ans mat na quinze ans waaw te boo koy lii da nga xam ni téere bu xam ni à chaque fois maa ngi dem si le terrain di gëstu di di yokk information yi ngir gën a xamle maam Cheikh li tax ma bind téere bi nag mooy bi ñu nekkee université Cheikh Anta Diop bi ñuy gëstu si yoonu murit dañ doon gis ni tubaab bii rek ñoo doon bind si maam Cheikh moo doon bind si yoonu murit téere yi ëpp yi gën a am solo yi wax si yoonu murit ay tubaab ñoo koy bind ñenn ñi nekk ay français ñenn ñi nekk ay anglais ñenn ñi nekk ay américain wala yeneen nation ñu bokk si yeneen nation loolu nag naqariñu woon ñu lool ñu ni woon nag dañ jéem a xool ñun lu ñuy eh, indee suñu contribution ba ñu commencé ñun ñii dëkk si réew mi ñun ñii di murit commencé wax si si yoon wi donc loolu moo doon yéene ji bu njëkk bi ñaareel yéene bi moo doon nit ñi gën a xam maam Cheikh ndax maam Cheikh Ibra Fall boo doon xool Sénégal ñi gën a siiw si la bokk mais ñi dañ koo def dañ koo desee xam waaw loolu mooy loolu mooy contraste bi nekk si moom c'est-à-dire ku siiw la mais nit ñi dañ koo desee xam du euh, sénégalais lambda bi doo ko desee xam même taalib mu bu nit am nañu xam ñu xam ni maam Cheikh loolu moom lu am la lu tax loolu mooy ni koy waxtaanee souvent moo tax parce que bu ñuy waxtaanee maam Cheikh suba maam Cheikh Ibrahima Fall souvent dañuy mettre euh, l'accent si wàllu baatin mais duñ waxtaan ak moom si wàllu si wàllu Zahir cest à si sur le plan temporel man nag sama téere bi si lool euh, la sukkandiku c'est-à-dire damaa wane maam Cheikh Ibrahima Fall si wàllu temporel cest à nit simple rek waaw ma topp ay tànkam nag pour war a wane lan la liggéeyal sëñ Touba lan la liggéeyal yoon wi waaw ma bu ma bindam téere bi damaa sukkandiku si ay eh, téere yu xam ni bind ko si yoonu murit loolu moom kuy gëstu moom ngay ko tam mu njëkk a tàmbalee c'est-à-dire lire lépp lu ñu bind si yoonu murit liir lépp lu ñu bind si maam Cheikh Ibra Fall pour xam gëstu yi fan la toll loolu moom ngay njëkk a def boo paree nag nga si ngay doo xam yow lan nga war a dolli lu xam ne kenn waxagu ko loolu moom mooy démarche scientifique donc li ma njëkk def mooy bind té lire téere yi bind yëpp si maam si yoonu murit eh, ak si maam Cheikh doo ko dem archive nationale lire archive yëpp ñu bind si yoonu murit tout les archives ma dem fa pendant de mois et des mois di lire archive benn par benn pour xam la wax si yoonu murit ak la leen wax si maam Cheikh Rajo Fall jël téere yi xam ni ñi nekk si yoon wi ñoo ko bind yooyu tamit ma ma jàng leen pour xam ñoom lu ñu wax si maam Cheikh Rajo Fall mu mujjee ñi xam ni bind ñu téere mais dañuy wax si maam Cheikh Ibra Fall moom la wax la tradition orale waaw mooy mag ñi xam ni dund nañoo moom wala seeni sët ñi ngi fi ñu wax leen si moom dara wala waxtaankat yi xam ñu ngi waxtaan si maam Cheikh Ibra Fall te xam li ñuy wax foofu ci ma sukkandiku donc loolu mooy samay source pour ma bind livre bi. ak ay enquête sur le terrain may dem si terrain bi fu ma fu mu fu mu jaar rek ma dem fa daal di laajte su fekkee am na lu ma fekk ma photo ko boo ma tax livre bi am na lu mat ay daanaka soixante-dix photo yi mi ngi si si biir livre bi waaw fu ma dem fu nekk lu mu fa bàyyi ma photo ko daal di ko si biir livre bi. donc noonu laa def ba bind livre bi moo tax livre bi jël jël temps boobu jël temps boobu te maam Cheikh Ibrahima Fall tamit di si yéema mooy euh, looy gën a gëstu ba boo gëstoo ba ne yow jeexal nga rek. nga dégg leneen lu xam ni nekkul si livre bi moo tax à chaque fois da ngay da ngay dem da ngay dem ba dem ni ba ni man pare naa mais da ngay mujj tijjiwaat la ma bindoon yokkaat def li ñuy wax à jour. mise à jour li mujj rek euh, comme information mooy marché bi nekk Njaareem tuñ tuddee comme marché Njaareem muy marché bu siw si Dakar dañ fay jaay ay légumes xam ngeen ni Njaareem mooy turu Jurbel benn sama benn xarit moom moo expliqué euh, cosaanu tur boobu marché Njaareem ndax waaw bisimilah ma wax waaw ndax euh, ñëw na wala ñëw waaw maa nekkoon di expliquer information bu mu jot mu ci jot si maam Cheikh Ibrahima Fall mooy marché boobu ñu tuddee Dakar marché Ndialem dañ fa jaayee légumes muy marché bu siw boo xoolee kuy jaay légume dakaar fa ngay dem jënd légume doo ko mën koo jaay ci marché bu ndaw bi ma gëstoo ñu ne ma li indi tur bi mooy maam Serigne Fall bi mu dikkee njaareem bi ko Sëñ Tuubaa wooyee njaareem mu nekk fa dafa indi bayum dër bayum dër mooy horticulture di ko fa développé jël ay technicien horticole ci tubaab yi ñu ñëw di encadrer taalibe yi ci mbayum dër mbayum dër moom mu ñu développé Diourbel ba mu fa doole lool ba Diourbel à l'époque moo nekkoon capitale senegal Sénégal horticulture senegal Diourbel moo nekkoon capitale bi ñuy jël li ñu fa bay yëpp teg ko ci train bi di ko yóbbu Dakar di ko jaay ci marché boobu ñuy wax marché Ndiarème bu ne waaw li ñuy jaay fi moom fu ñu ko jëlee ñu ni njaareem la jógee loolu marché njaareem loolu bi ma ko jotee motul weer ma def ko si biir kon loolu tax livre bi euh, mu jël temps loolu tax mu jël temps donc loolu moo loolu mooy sababu bindub livre bi benn bi donc mooy xeex li fi amoon mooy bu ne yoonu murit wala yoonu wala yoonu tijaan wala El Hadj Omar Tall wala suñu mag ñi fi nekk ñëpp koo ci wax ñu la ah spécialiste bi kat américain la wala ah kii kat spécialiste bi français la doo dégg mu ñu la sénégalais la loolu moo taxoon man man di mooy bi jug ni man danaa bind si maam Cheikh loolu mooy benn motif bi deuxième motif bi mooy gën a xam ne maam Cheikh Rayma Fall parce que même man bi may commencé liggéey samay gëstu sama mémoire maîtrise image bi ni am si maam Cheikh Ibrahima donc laa amoon si moom mais bi may commencé gëstu nag dem archive di lire di lire laa xam ne ah nit ñi kat dese na noo xam maam Cheikh. ba xam ne sama encadreur bi xam ne moo doon encadré ndeysaan làqu na bi wax sëriñ ba Dieng moo doon encadré bi ma njëkk def sama recherche bu ñëw teg ko dafa ni ma yow ki may wax nii ndax maam Cheikh bi ñuy wax la loolu la ma wax ki ngay wax nii moo nekk nii ndax maam Cheikh bi nii wax la ma ne ah moom la de mun ma dee loolu mënut a nekk mun ma loolu mënut a nekk donc man maa gën a man maa njëkk a yéemu si li ma xam dëgg-dëgg si maam Cheikh Ibrahima te bu may gën a li may gën a xuus mu may gën a jaaxal man dayam di ma gën a jaaxal donc loolu moo tax ma bind téere bi donc liggéey bi ñu commencé 2000 en en 2002 laa commencé liggéey bi ak sama mémoire maîtrise enchaîné ko sama DEA terminé ko parce sama doctorat bi ma paree maintenant laa ne naa bind livre bi bu xam ni day wax uniquement si jaar-jaaru maam Cheikh Ibrahima Fall. livre bi nag comme ni ko professeur Cissé waxee ñu ngi ko tàmbalee par euh, préface yi remerciement yi ak introduction bi. Euh, préface bi sëñ Cheikh Jëmb Fall à l'époque bi ma njëkkee bind euh, téere bi. dama ko joxoon pour ñaan ko ndigal génnee ko mu daal di formé lu benn commission culturel sëñ Cheikh Jëmb Fall sëñ Assane Fall jiite ko ñu jàng téere bi pendant deux mois ñu woo ma ma ñëw ñun ma téere bi am na solo lool. ndax ñun de xamal nga lu xam ne ñun sax xamuñu ko woon sunu maam kon nañ la jox ndigal nga génnee ko. mu jox ma ndigal bind ko papier euh, pour ma génne ko mi ngi ci mi ngi ci biir si euh, biir livre bi mi ngi ci biir livre bi donc préface bi Moustapha Mamba Guirassy moo ko bind mooy l'ancien ministre la communication mooy fondateur école bi ñuy wax IAM te loolu tamit ndigal laa fi jot sëñ Cheikh Jëmb Fall moo ne ma demal ci Moustapha Mamba Guirassy mu bind ki préface bi ndax moom ko sopp maam Cheikh Ibrahima Fall te li wax dëgg la boo duggee bi da ngay gis photo maam Cheikh Fall waaw moom première référence am maam Cheikh Fall waaw moo tax moom mu bind préface bi comme dama si jotoon digal bi ma koy yeetal tamit ma maintenir la même préface moo tax même édition bi même préface lañu doon doon conservé conservé bi loolu weesoo ñuy def introduction bi après introduction bi maintenant ñu am les deux grands chapitres premier chapitre bi mooy wane cosaanu maam Cheikh Ibrahima Fall fu mu cosaanoo muy doomu buur di un soxee ko ci famille royale yi nekkoon Kajoor bi loolu jàllee ñu wax ci ay waajuram ci Amadou Rokhaya Fall ak maam Seynabou Ndiaye wone seen cosaan pour xam leen ni maam Cheikh Ibrahima Fall comme ni ko ni ko nit ñu bëri jàppee foo ni jàngul ku jàng la doomu soxna la doomu soxna la ku jàng la li koy li koy firndeel mooy téere bi bind tuddee ko Jazbul Murid moo ko bind bi loolu soo ñu xool fan la fan lay jàngee ay boo xoolee baayam moo ko njëkk a jàngal après bi mu làqoo ay nijaayam jàngal ko loolu mooy première partie deuxième partie maintenant ñu wax si li mu jëf maintenant li mu jëfal yoon wi li mu ko jëfal ñu ngi commencé bi mu jébbaloo si maam Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Kajoor en 1880 84 bi mu ko fekkee Mbàkke Kajoor si ngi gis Bamba jébbalu si moom ginnaaw bi mu jot jógee ndigal jotee ndigal si buur bi yàlla ah bi ko jox ndigal mu liggéey si si Cheikh Bamba la ko fi la ko fekkee ngi gis Bamba jébbalu en 1884 bi mu jébbaloo nag la liggéey bi commencé bi ñu jógee Mbàkke Kajoor daal di ñëw Mbàkke Bawol jóge Mbàkke Bawol ñu fonde Daaru Salaam jóge Daaru Salaam ñu fonde Touba. ñu ngi ko yeewi comme ni ko professeur Cissé waxee léegi bi mu nekkee daaru daaru salaam lañ ko yeewi Sëñ Tuubaa ni ko jox ko ndigal maintenant mu dem liggéeyal liggéeyal yoon bi mu yónni ko Ndar à l'époque Ndar à l'époque moo nekkoon la capitale de de la Oyof fa ko wax mu dem liggéeyal ko waaw donc loolu mooy première partie bi deuxième partie maintenant ñu wane lan la liggéey sur le plan socio-culturel parce que boo nee yoonu murit ki koy incarné mooy maam Cheikh Ibrahima lépp lu ñuy def su ma leen ko royee loolu moom murit yëpp xam nañ ko ñu wane ko. ñu wane aussi ni mu li mu liggéey si wàllu social cest à ni mu def ba séeréer yi mu def ba suñu mbokk séeréer yi nekk murit si jamono ji metti ju xam ni tubaab bi dafa ne woon ni séeréer yi moom see boo ñu bañ a sonn su ñoom ndax kenn mu leen tàqaleeg seen cosaan. waaye maam Cheikh Ibrahima Fall dugg si ñoom dubloo leen te euh, de manière pacifique de manière pacifique ñu wane aussi nan la tuubloo ceddo yu fi nekkoon dugal leen si yoon wi ñu mel ne mbaaxaan ak ñeneen ñu bëri nekkoon ay buur nekkoon ay doomu buur mu tuubloo leen dugal leen si yoon wi tarbiye leen boo xoolee sax moo gën a métti tarbiye bi mu leen tarbiye yi doomu buur yooyu li mu leen tarbiya ba ñooñu woyof woyof nekk ay taalibe woyof di liggéey di liggéey seen ak seeni loxo di majal di nekk chauffeur di nekk ay ay ay ay garde corps daanaka euh, donc tarbiya boobu ñu wane lan la si maam Cheikh Fall liggéey muy liggéey bu am solo. loolu weesoo ñu men ñu xool wane maintenant lan la liggéey su le plan diplomatique. sur le plan diplomatique parce que sëñ Touba ak euh, tubaab bi seen diggante rataxul woon loolu tax ñu exilé ko au Gabon exilé ko en Mauritanie exilé ko Thiel maintenu ko en résidence surveillée à Diourbel ba ba mu làqoo foofu lan la maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey si diggante boobu ba tubaab bi tuddee ko le diplomate de Jean Bamba bi mu demee Gabon moo fi nekkoon ak député maire de l'époque député Sénégal de l'époque bi def François Carpo Carpo Carpo dafa ñëw ni ko man damay bëgg a bokk élection bëgg a mooy mi muy nekk daal bëgg a ma bëgg nga jàppale ma ma gagné élection yi élection yi di ñëw boo ko defee man naa lijjanti ah ba sa sëñ bi ñu exilé mu ñibbisi maam chef ni ko dégg nga loolu nga diggee boo ko boo ko defee naa la jàppale. élection yi ñëw mu jàppale ko si wàllu koppar wax taalibe yi ñu voté ko élection yi dikk Carpo gagné bett ñëpp ndax à l'époque député sénégalais ay tubaab lañ woon. ay tubaab lañ woon tubaab bi weex lañ woon Carpo nag moom mulâtre la woon ñëpp foo du gagné élection yi ñëw mu gagné moom ti mu mu daan def li mu diggee woon daal di commencé di bind assamble française pour que ñu tegg tuuma yi ñu tegoon te bàyyi ko mu ñibbisi maam Cheikh Ibra Fall nekk moom di liggéey di liggéey ba Sëriñ Tuubaa ñibbi si Sénégal bi ñu ko yóbbee gànnaar mu continuer si loolu liggéey liggéey carpo liggéey carpo ba mu jëlee ko gànnaar indi ko Thiès bi mu nekkee Thiès noonu la continuer ak moom di liggéey ban indi ko njaareem même bi mu nekkee njaareem gis ay lettres yu bëri mi ngi sama sama bi muy wane ni mu ngi doon lijjanti tubaab bi ak tubaab bi pour que tubaab bi. Euh, bàyyi sëñ Touba mu ñibbi si Touba mais loolu mu ñu sotti donc loolu mooy activité yi su le plan diplomatique pour looloo tax ñu tuddee ko tubaab bi tuddee ko woon mu ne woon maam Cheikh Fall est fin diplomate. loolu loolu loolu la tooy bind mu ne maam Cheikh Fall c' est fin diplomate boo xoolee aussi crise wu Daaru Manaan bi bi dee sëñ bi ñu waxee sëñ sëñ Touba ne na na wuy gouverneur Ndar mu bañ ni bala may dem. foog gouverneur yónni ay ndaw ba ñu xam ni li may li may jiñ du dëgg gouverneur woo ko lu bëri mu bañ finalement ñun dañ koy attaqué daaru man naan tas daara ji bi ñu demee ba lool nar a am gouverneur dafa ni nan woo maam Cheikh Fall mu waxtaan ak Sëriñ Tuubaa moom waxtaan ak moom mën na mu comprendre loolu tamit lettre yi muy si lettre yi lettre yi Cheikh Fall gouverneur bind Cheikh Fall mi ngi si biir livre bi donc loolu mooy wane ni moom c'était le diplomate de Cheikh Ahmadou moo nekkoon diggante moom ak tubaab bi loolu ay preuve la ay archive la mi ngi ci biir livre bi wax tamit ci activité économique économique ndax euh, ab mbooloo pour euh, dunduk mbooloo yàgg foog ñu am ay koppar foog ñu am ay koppar parce que bu na muy bu na mul koppar danañ lépp wala ñu ñaan te buñ ko defee duñ am seen autonomie moo tax économie lu am solo la si mbooloo si wàll woowu nag maam Cheikh Ibrahima Fall liggéey dafa liggéey bu am solo te tubaab bi ñoo ko tuddee woon tubaab bi toujours ñoo ko xool topp ko ba tuddee ko le ministre des affaires économiques de la confrérie mouride Paul Paul Marty moo ko tuddee woon noonu Paul Marty benn benn gëstukat tubaab. moo ne woon c'est le ministre des affaires économiques de la communauté mouride moo ko tuddee woon leen de la communauté mouride l'intendant de la communauté mouride cest lu yoon soxla rek moo koy joxe looloo ko Paul Marty tudde woon li ko may loolu nag mooy dafa doon yëngatu si lu bëri si lu bëri si wàllu koom-koom bi si njëkk mooy mbay mbay mi ñu xam Sénégal cest à mu taw nga bay li ma amoon si ay tool mi ñu tàmbali liggéey sëñ Touba tubaab moo ko bind Paul Marty moo ko bind nee na amoon na lu mat lu ëpp téeméeri tool senegal téeméeri tool cent cinquante champs am la amoon Sénégal exploitation agricole nee na si toolam yooyu ñoom à l'époque amoon na deux mille taalibe bi liggéey si tool yi amoon na deux mille taalibe bi xam ne ñu ngi si ñu ngi doon si toolam yooyu te tool yi dafa tasaara woon Sénégal loolu Paul Marty moo ko bind si livre am Fiches et enseignements à l'époque bi muy doog a bi tàmbali nee na à l'époque mu doon gagné chaque année cinquante mille francs par an à l'époque il gagnait cinquante mille francs par an waaw loolu tubaab yi bind. loolu moom mooy mbaru mbay mbay mu ñu xam Sénégal muy taw ngay bay waaye li gën a yéeme mooy maam Cheikh Ibrahima moo ko dugal Sénégal li ñuy wax horticulture mbayum dër moo ko dugal Sénégal ndax bi mu nekkee Ndar dafa gis ni tubaab bi dañ fa dañ fa dañ fa euh, implanté li ñu doon wax à l'époque le jardin d'essai botanique de Saint-Louis jardin d'essai botanique de Saint-Louis fu mu nekk nii boo demee Ndar mooy mooy mooy mooy siège ISRA de saint mu xool ni tubaab bi dañ fa doon dañ doon jël dañ doon jëlee ay njëmbat bitim réew indi ko jardin botanique boobu nekkoon Ndar pour mën koo euh, lawal Sénégal waaye nag bu amul plante bu amul Sénégal rek ñu jëlee ko bitim réew essayé ko jardin botanique bi pour xool da ngeen garab boobu seen suuf Sénégal nangu na ko bu ko nangoo ñu ko ñu doog koo siiwal maam Cheikh Fall daal di gis loolu nag daal ko exploité moo tax bi ko tubaab yi mayee suuf gàññul moom moom mu commencé mbayum dër dugg ci horticulture bi di bay di yóbbu ndaal di jaay demoon na ba tubaab yi mujj dootuñu importer li ñuy lekk lépp luy fruit ak légume dañ dem si toolam ba mu ubbeenu koy jaay mujj ñu dem mujj ñoom ñuy dem ba sa toolam ba di ko visiter ndax yéemu ndax yéemu mu domine totalement horticulture bi à à saint donc loolu def na si wàllu horticulture bi mu demee Thiès noonu la def Daaru Bayre dëkk mi di wax Daaru Bayre boo demee ba léegi da fay bay bayum dër di fa bay ay fruits moo ko fa yóbbu loolu tamit Paul Marty fekk na ko fan ni ko maam Cheikh looy def si àll bi mu ne ko suuf si daa nangu suuf si suuf si daaru bayre daa nangu te effectivement dëgg la parce que dem naa ba foofu foofu boo demee daanaka si si kaw ndox ngay dox ngay dox waaw si kaw ndox ngay dox c'est-à-dire zone boobu moo gën a baas si Thiès ndoxum Thiès mépp fa lay fa lay fa bu dégg naa bi ñu bë ba ñu fa bëttee teen en 1902 ndox mi da doon bale si kaw ndax bëri foofu mooy Daaru Bayre foofu tamit mu def horticulture di jële ay plante Saint-Louis di ko jëmbat Daaru i nga euh, plante yooyu muy jëmbat Daaru Bayre moo law ba zone Niayes moo law ba Pout donc boo xoolee zone boobu ñuy produire ay légumes di produire ay fruits maam Charin Fall historiquement moo ko fa yóbbu historiquement moo ko fa yóbbu parce que zone yooyu xamuñu woon loolu. xam ñu won mbay moomu mais moom bi mu nekkee bay bayre di fa dem mbayum dër def ko dëkk bu ñuy wax ndey mu ngi wetu puut def ko dëkk bu ñuy wax kër jaa def ko dëkk bu ñuy wax jandeer loolu moo mujj tasaaroo zone boobu yëpp ba fu mu nekk ni Sénégal boo nee fruit ñu légume ñu mbayum dër ñun la zone boobu mooy zone productrice au Sénégal loolu moo ko fa yóbbu wax naa la léegi histoire njaareem bi bi mu demee njaareem loolu la def bi mu daa demee njaarim xam ne njaarim am na ndox parce que njaarim am na ndox boo boo jógee boo jógee njaar euh, boo duggee njaarim jëm kër gu mag am na benn pont mu ndaw booy gis foofu am na ndox bi mu dikkee njaarim loolu la gis mu xam ni fii mbayum ndër mën na dox mu jël mbayum ndër et commencé ko di ko def Jurbel di woo ay technicien horticole ci tubaab yi ñëw encadré taalibeem yi nekkoon njaareem yi def mbayum ndër ba mujjundu mujjun njaareem nekk capitale horticulture Sénégal fu mu nekk nii boo ko waxee waaw fu mu nekk nii boo nee waa njaareem njaareem moo nekkoon capitale mbéyum de duñ ko ko gëm parce que fu mu nekk nii amatu fa. dañ koo sàggane ba mu ba nax saay waaw ban koo sàggane ba mu nax saay mais boo boo xoolee les conditions géographiques da Diourbel da nga xam ni Diourbel war nañ faa def mbéyum tër parce que am na ndox am na ndox mu neex am na ndox mu neex. waaw maa ngi profité di gërëm euh, suñu mbenn mbokku taalibe bi ñuy wax Cheikh euh, sii di Diop fu mu nekk nii mi ngi jéem a dekkali mbayum dër si njaareem waaw boo demee zone boobu noonu suuf pont bi dangay gis mu aménagé ko di fa def mbayum dër di fa def di fa def di fa def napp dem naa fa mu ñuy napp jën foofu waaw bi ma fa mujjee dem dem naa foofu ñuy napp jën si biir ndox mi donc di wane ni lu lu mën a nekk la donc loolu mooy volet agriculture boo jëlee wàllum commerce. maam Cheikh Fall moo nekkoon le plus grand commerçant de l' époque maam Cheikh Fall le plus grand commerçant de l' époque au bi mu nekkee Saint-Louis dégg naa bind nañ ni amoon lu mat ay 63 boutiques à Saint-Louis bi mu nekkee Saint-Louis amoon lu mat 63 boutiques à Saint-Louis. nee jamono jooju maam Cheikh Fall bu xëyoon tëj ay boutique am waa Ndar duñ lekk waaw waa Ndar duñ lekk bi mu ñëwee Thiès bi mu jógee Saint-Louis jaar Ndande. ñëw Thiès mu nekk capitalam dafa toppraay bi rek de Thiès à Saint-Louis escale train bu fa am mu def ko boutique noonu la ko toppee escale boo dem ba léegi nii boo demee escale yooyu boo laajtee dañ ne fii këru maam Chara Fall terrain moo ko jëndoon bu jëndee terrain dafay tijji boutique domine commerce boobu foofu. mujj na tubaab bi fi nekkoon xam ne ñoo fi nekkoon si commerce bi mooy tubaab bi ak libano syrien yi xam ne ñoo dimbali woon commerce bi doon ko mujj porte plainte bu bu leen sonalee li may def archive la de li may def tubaab yi ñoo ko bind. doon ko mujj porte plainte maam Cheikh Fall mi li muy def commerce bi muy def nii ba muy dox ban sonal jaarul yoon fan ko xool parce que porte plainte au niveau la justice. ñu def investigation daal ni maam Cheikh Fall commerce muy def nii lu leew la lu la daa xam waaw daf gën a xam commerce waaye amul fenn fu mu jàngatee waaw donc pour wane ne moom c' était un très grand commerçant c' était grand commerçant donc loolu si wàllu commerce la.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 rapidement ma résumé waaw waaw d'accord d'accord kon bi ñu waxee ci wàllum commerce ñu wax ci wàllum pêche napp maam Cheikh Ibrahima Fall yëngatu na si wàllum napp ndax bi mu nekkee ndar xam ni ndar euh, dëkku napp la daa junoon ay gaal jox ko taalibe yi ñuy napp loolu def na ko bi mu nekkee ndar donc yëngatu la woon si wàllum napp ku yëngatu woon ci wàllum suuf wàllum suuf si samay gëstu de ba ba léegi ba léegi gisuma sénégalais bu xam ni li maam Cheikh Ibrahima Fall am si suuf am nga ko ba léegi titre foncier li mu si am Sénégal ba léegi gisuma sénégalais bu xam ni am nga ko nit a ngi dëkk Sénégal si kër maam Charayen Fall titre foncier maam Charayen Fall te xamu ko loolu li ma li ma wóor la ñu tënk dëkk Sénégal muy partout au Sénégal ñu tënk dëkk si titre foncier bu xam ne maam Charayen Fall moo ko moom te xamu ko donc ku amoon patrimoine la si wàllum suuf ñu ngi ko tàmbalee ndar bi mu nekkee ndar boo jëlee ni c'est Charles de bu ndar titre foncier la woon boo jëlee école élémentaire Saliou Touré je crois tudd bu nekk ndar titre foncier la woon këram la woon mu jaay mu jaay ko tubaab bi. ndar am na suuf suuf su bëree bëree bëree bëree boo bi mu ñëwee Dakar foo gën si Dakar la la taamu jënd fay te am ay am fay titre foncier mooy plateau boo jógee hôpital principal bi avenue Roume. moo ko moomoon moo ko moomoon hôpital principal avenue Roume ko booyee ci palais bi moo ko moomoon ancien Sénat Sénégal ancien Sénat Sénégal mooy Sénat bi ñu tas maire Pape Diop nee na titre foncier Mame Cheikh Rayon Fall la ancien Sénat titre foncier boo demee wetu hôpital principal yëg ci kaw te am na kàcc mi wax Lambinaas la woon titre foncier am woon. bi sëñ tubaa jógee Gabon moo ko njëkk dalal këram gi nekk Touba bi gi nekk dakaar boo li boo jàngee Jalaaw Sakkoor sëñ Moussa Ka mi ko si wax moo ko dalal këram gi nekk dakaar ñetti fan gane ko sëñ bii dem mu may ko kër gi jox ko àddiya après sëñ sëñ tu sëñ tubaa jël kër gi jox ko sëñ Balla Coro loolu sëñ Moussa Ka bind sëñ Cheikh Coro loolu sëñ Moussa bind donc ku amoon ay titre foncier la Dakar ak ak position géographique bu baax si samay si may gëstu gis naa benn euh, immeuble am bu xam ne en 1905 1905 la koy la ko jaay benn marocain immeuble am archive baa ngi si biir livre bi 1905 devant notaire lay jaay immeuble à un en 1905 à l'époque bi mu ñëwee njaareem même chose te moom bu jënd bu ñëwee ab dëkk du jënd du jënd parcelle loolay jënd maam Cheikh loolay jënd bi mu ñëwee Thiès loolay jënd mooy Madina Fall. taalibe yi ñëw mu dagg ko ay parcelle motali ko par jox ko ñu dëkk bi mu ñëwee njaareem même chose def daa jënd loo taalibe yi ñëw mu morcelé ko ay parcelle jox leen ko ñu dëkk moom moom daal woon jënd parcelle. mairie Mbacke boo demee mairie Mbacke bii. titre foncier maam Cheikh Ibra Fall maire Mbacke titre foncier maam Cheikh Ibra Fall. Hmm? waaw titre foncier la waaw. donc moo tax la boo demee Daaru Bayre Daaru Bayre Daaru Bayre boo fa demee da nga yéemu bu ne la bu la wax bu la waxee surface Daaru Bayre da ngay da ngay yéemu da ngay yéemu waaw am na ñu si boo xam ne dañ ko dagg dañ koo dagg si surface Daaru Bayre may may koy bi pour wane yaatuwaayam. donc ku xam xamoon ku xamoon njariñu suuf la à l'époque ba pare xam nu ñu ko exploité la preuve à chaque fois que yoon bi soxla xaalis doon jël titre foncier am jaay ko wala mu jël këram jaay ko jox ko yoon bi donc xamoon valeur euh, patrimoine immobilier la woon maam Charayan Fall waaw loolu donc mooy mooy activité am sur le plan de l'immobilier bi may mujjee mooy lan mooy wàllu transport wàllum dem ak dikk bi mu dëkkee maam Cheikh bi mu dëkk bi mu nekkee Njaareem amoon na ñetti oto amoon na ñetti oto am na benn oto am na benn oto boo xam ni si livre mi ngi si mi ngi ko doon wax marque Vauxhall Vauxhall moo joxe Volkswagen te à l'époque oto boobu mu jëndoon moo doon oto oto bi mujj a génn à l'époque amoon na ñetti oto ba pare ni ni ni taalibe yi jéem leen a jàng dawal ndax àdduna si si suñu kanam. transport dana am dana am dana am njëriñ daal di jël ay ay taalibeem ak ay doomam ñuy jàngal taalibe yi dawal. ba si sama livre am na benn benn permis boo xam ne benn taalibeem bi ñuy wax benn taalibeem en 1926 la am permis la am permis mu leen di mu mu leen di wan ni transport dana mës am njëriñ si réew mi dam leen jàngi dawal waaw foofu tamit mu wane ni moom c'est un très grand visionnaire c'est un très visionnaire. donc loolu mooy activité économique xam ne moom la doon mëne te bu ñu koy mënee li doon yéene mooy à chaque fois que yoon wi soxla koppar mën a taxaw mën a taxaw te wane na ko wane na ko lu bëri ndaxte li muy li mu def si yoon wi li mu liggéey si yoon wi si wàllum koppar yaakaar naa ni amul kenn ku ko def waaw jumaay njaarim donc donc doy na si firnde doy na si firnde donc loolu mooy activité économique yi xam ne moom la moom la mel ne donc euh, loolu daal mooy euh, mooy tënk tënk livre bi xam ni loolu daal mooy. loolu daal mooy tënk livre bi xam ni moom laa bind ah jagleel ko maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, di ñaan euh, mbokk taalibe yi ak waa Sénégal euh, ñu liir ko jàng ko ndax maam Cheikh Fall solution la pour Sénégal solution la pour Sénégal ndax fu mu nekk nii boo xoolee sunu réew mi lu tax développé wul mooy ñuy jéem a jël ay modèle feneen dañuy jéggaani alors que. ku mel ne maam Cheikh Ibrahima doy na sëkk modèle parce que ku dem ba jaaxal tubaab bi ci wàllum liggéey ci wàllum diplomatie kooku je crois jol jot doy na sëkk modèle te lim li boo liggéey da nga da nga gëm ni euh, pour am koom-koom ñuy tukki tax maam Cheikh Ibrahima fu mu dem fu nekk dana xool ni lii su ma ko exploité dana jur koom mu jël ko koom waaw moom la def ndar bi mu demee ndar xam ni ndar mu dër dafay dox. dafaa def mbayum dër fu mu demee ndar xam ni napp dafay dox mu def fa napp donc nit ki war ngaa xool fa nga dëkk la fa nekk ak la mën a jur nga jëm ko exploité boo ko defee boo ko defee mu jur koom waaw kon donc loolu je crois que c'est une solution pour euh, les Sénégalais et plus particulièrement pour les pour les jeunes parce que ñun euh, xale yi bëgg nañ baax maam Cheikh Ibra waaw bëgg nañ ko ku baax mais li des mooy ñu xam ko ba mën koo jëriñoo si si si wàllu si wàllu saayir si wàllu zahir wàllu baatin moom dama koy bàyyeeg ñeneen waaw wàllu baatin moom dama koy bàyyeeg ñeneen mais si wàllu za si wàllum zahir nit ñi ak ndaw ñi war nañoo mën a jëriñoo maam Cheikh Ibrahima ndaxte njëriñ dong la waaw mbéyum jariñ dong la boo xoolee diggante beeg tubaab yi Moussa ak ñoom problème diplomate la woon. waaw malgré li tubaab bi def suñ tubaab lépp. da doon am ak ñoom ay relation yu rafet demoon na ba tubaab bi di ko tudde ay doom demoon na ba tubaab ñëw di ñëw ñaar njaareem di fa vacances yi jóge France ñëw këram di fa vacances moom muy dem di leen seet dafa di am seen kër ay ay ay fan ñu koy recevoir seen pare yi waxtaan ak ñoom mu fay fanaan ñu gës ñuy ñuy weccoo xalaat donc kooku diplomate la noonu la doon def noonu la def ak sëriñ ñi fi nekkoon El Hadj Malick si xaritam la woon da ko doon seeti ñoom ñëpp da ko seeti. kon kooku modèle la référence la sur tous les plans waaw plus particulièrement maintenant sur le plan économique parce que fu mu nekk nii lu ñu yitteel mooy euh, suñu réew mi dox donc bu ñu gisee référence boo xam ne maam Chara Fall la war nañ koo mën a gën a xam pour mën koo gën a jariñoo waa jërë ngeen jëf. Euh, merci beaucoup professeur. Euh, Euh, Doudou Mané Diouf euh, <clears throat> sa intervention euh, wane na ni sujet bi nga doon traité sujet bu maîtrisé la wane na itam ni xam-xam dañ koy gëstu dañ koy gëstu ci ñaari fànn mooy li nga li ñuy tuddee revue littéraire mooy booy aborder benn sujet da ngay gëstu lañ ci bind fan lañ fay am yow nga tàmbalee foofu euh, beneen aspect bi day dugg ci méthodologie bi li ñu tuddee enquête de terrain enquête de terrain aussi euh, d'ailleurs sax yu bëree bëri ci xam-xam ci enquête de terrain ko koy def Jean Copin li mu ñeneen ñu bëree bëri ci les la de l'arachide mooy dafa wàccoon ci terrain bi dem ci village mouride donte sax li mu bind yëpp am na ci lu bëri loo xam ne nekkul dëgg parce que il y une barrière linguistique il y a également une ignorance de la sociologie et de l'anthropologie sénégalaise yooyu dafa nekk ay ay barrières yoo xam ni ñu bëree bëri bu ñu def enquête de terrain def leen di kii mais enquête de terrain mënul ñàkk léegi ci recherche scientifique kon su ma bëggee résumer rek damay wax ni li nga xam ne moo gën a yéemu ci téere bi mooy la profondeur de l'analyse et la richesse de la matière la richesse de contenus ndax 15 euh, ans dund doomu aadama la 15 ans ku ko def ci benn téere wax dëgg yàlla jox nga téere bi àqam boole ci mooy étape yi nga ko jaarale mémoire de maîtrise dem ci mémoire de DEA door a def ko door a def thèse door ko seggaat génne ko ah réactualiser ko loolu euh, lu lu loo xam ni étudiants yi ak élèves yi ak ñi bindikaat ci ndaw yi sax war nañ ci bàyyi xel mooy ne xam-xam kon day ñor xam-xam dafay dafay ñor loolu tegtale na ko kon wax nañu kan mooy Cheikh Ibrahima Fall cosaanam fan la bokk nan la jànge nan la jokkoo ci sëriñ bi nan la ko taxawoo fan la ko sëriñ bi teg lan la doon liggéey ci sur le plan économique commencé ci agriculture ba ci transport en passant donc par euh, le commerce n'est-ce pas et l'immobilier patrimoine bi surtout nag waaw muy lu loo xam ne lu am njëriñ la waaye loo xam ne dafay euh, dafay daf may fàttali li nga xam ne moom la cheikh Mouhamadul mustafaa ci boppam waxoon maam cheikh Ibrahima Fall sëñ Mouhamad Bachirou sëñ Fallou ak cheikh Mouhamad Bintaloo bañ demee fekk ko njaareem fekk dañoo indi sëriñ bi fii ba pare ñoom juróom ñoo ñu ma wax dem njaareem fekk fi sëñ Modou Moustapha ni dañuy yeesal njëbbal ci moom mu yóbbu leen ba fa nga xam ne fa la sëriñ bi génne woon àdduna mm-hmm. mun leen kii nga xam ne moo fi jóge ca moo tax ngeen di jaayanteeg man lem dige woon nag rasulullah sallallahu sangambal lépp def na ko ba mat kon li ngeen di jaayanteeg man ah na ngeen ci bàyyi ñeent ci bu ko defee mbooleem murit ba ci seeni sët yéen ñu boole ko ci mooy benn loolu def na ngeen ko jiital xam-xam ci wax nga ko léegi ku amoon xam-xam ah? la waaye mu ni xam-xam dafa am fu mu xam-xam mënu lépp kon loo leen def na ngeen ci boole xaalis loolu la xamoon ci ku daan collaborer ak Cheikh Ibrahima Fall la ku ko daan déglu la n'est-ce pas mi doon junj ay projet collectif yi nga xam ni mooy jumaa ji ñu tabax tey ak raay bi ñëw ti raay bi jóge njaareem ñëw Touba mu ni bu xam-xam jàllee xaalis topp ca nangeen ci teg doole mm-hmm. la force physique mm-hmm. parce que xam-xam ak xaalis dafa am fu ñu yem ba tey mi ngi junj tabax bi waaye mi ngi junj liggéey ci tool yi ndax moom bu leen fàttali moo sañ ci bi mais moo sañ Taïf Mbacké Taïf Mbacké ci dëkk yu murit yi gën a développé ci la bokk mm-hmm. arrondissement sax la ma juumut nest pas mun leen bu ñett yooyu jàllee na ngeen ca teg lu na ngeen ca teg vision xam-xam xaalis force physique ak vision ñeent yooyu la Cheikh Ibrahima boole woon moom moom nga tënk moom nga incarné kon dafa mel ni moom xamoon na jëmm ji mi waxal xamoon na ñi doon waxal te ñoo wutoon ñëpp kenn ku ci nekk kàngam nga woon sëñ Fall kenn du ko waxaale ah? sëñ Bassirou kenn du ko waxaale moo ñu andi lii tey waaye Cheikh moo bintalo également mm-hmm. kàngam la woon ci eh, ci yoonu murit kon ci gàttal rek mm-hmm. mooy ni Cheikh Ibrahima Fall ni nga ko waxee mm-hmm. modèle la boo xam dañ ko war a reproduire mm-hmm. ci xam-xam ah ci jëf ci jikko ci vision mais également ci volante surtout xam naa kon foofu la ñuy tëje waxtaan bi ba dem julli ji ba ñëw ñu continuer incha allah et merci beaucoup euh, professeur الله لا إله إلا الله الله أكبر ربنا أكبر الله أكبر الله أكبر الله والحمد ربنا